tey c'est lundi bu nekk dañuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum sport euh, pour ça tey on va parler de natation pour loolu dañu dalal suñu invité di euh, Amadou Lamine Ndoye nekk euh, premier vice-président fédération sénégalaise bu natation et sauvegarde sauvetage je dirais donc Alioune Gueye dama lay bàyyi nga daal di dalal suñu ganu bés bi ñu tàmbali suñu waxtaan. oui Fatou wax nga ko tey jile ñuy dalal comme ni nga ki nga xamante ni euh, mooy docteur Amadou Lamine Ndoye moom mi nga xamante ni mooy premier vice président de la fédération sénégalaise de natation et de sauvetage monsieur Ndoye ñu ngi lay nuyu di la wax euh, dalal ak jàmm suñu plateau. maa ngi lay fay di leen gërëm euh, ci invitation bi. Euh, c'est un plaisir d'être présent ici au sein de ce de Label TV quoi. Mmh. très bien euh, natation daanaka mu nekk bon mën nañu wax ni sport la Euh, sport la boo xamante ni euh, duñ ko faral di dégg lu lu bëri loolu moom euh, lu ko waral. waaw mën naa ne xëy na sax peut-être que on a l'habitude de dire que euh, natation sport de, de nanti la loolu déjà c'est un facteur bu tax lu tax ñu naan duñ ko dégg lu bari e de notre côté aussi euh, c'est notre valeur nos valeurs sociaux. Euh, donc euh, qui fait que vraiment les gens pensent que la natation c'est quelque chose qu'il faut euh, demander aux enfants et ainsi de suite de ne pas le pratiquer à cause des risques qu'il y a n'est-ce pas yi nga xam ne am na ci par exemple des risques de noyade donc raison pour laquelle peut-être looloo tax c'est pas un sport euh, qui est tellement vraiment prisé Euh, loolu daal bokk na ci facteurs yi nga xam ne xëy na du tax duñ ko déggoo lu mm-hmm. bari. léegi natation yéen nan ngeen koy jàngalee wala ki ñu koy jàngal euh, ñaata at la war am wala amul euh, dépendre ci ay âge at boo am mën nga ñëw ko def ko wala. si alors euh, c'est un sport bi nga xam ne à tous les âges disons partant de de la petite catégorie ñi nga xam ne age nañ à partir de cinq ans. jusqu'à euh, 7 ans ñoom la ñuy wax 7 euh, ans 8 ans jusqu'à 10 ans ñoom la ñuy wax catégorie poussin donc mën nañ mooy catégorie bi gën a ndaw mën nañ ko tàmbalee jàngale boobu ba jusqu'à 77 ans euh, ou même plus euh, c'est pratiquement l'un des sports bi nga xam ne à tous les âges pratiquement on peut le pratiquer contrairement à d'autres sports parce que la particularité natation mooy boo koy pratiquer doo supporter ce poids le poids de ton corps et puis euh, il de risque donc de de disons de de blessure boo koy pratiquer donc vraiment on peut le pratiquer à tous les âges. alors euh, man si côté santé lay xaw a ñëw tuuti parce que yenn saay dañu naan am na feebar yoo xam ne yu mel ni drépanocytose wala yeneen nit ki bu ko amee c'est recommandé muy def euh, natation est-ce que mu nga ñu leeral ci côté boobu. waaw donc euh, c'est vrai que c'est un sport bi nga xam ne fi muy defar ci nit dafa euh, bari daanaka pratiquement comme tous les sports. dafa am solo euh, nga koy pratiquer parce que euh, valeur yu mu ne qualité sur la santé yu mu la mën a indil bari na euh, mais particulièrement natation am na aspect respiratoire bi ci am boo xam ne da koy développer lu bari donc je sais pas je suis pas médecin euh, réellement pour dire que mm -hmm. est-ce que drépanocytaire euh, boo ko donnee nga pratiquer natation dina la favoriser en tout cas je peux dire des maladies comme asthme par exemple boo ko amee on te conseille vivement de de faire la natation parce que da lay permettre nga développer say capacité respiratoire mu lay mën a dimbali ci feebar boobu noonu donc euh, loolu mën naa ko wax ci natation euh, de manière générale euh, comme tous les sports ils sont bon à pratiquer pour pouvoir euh, vraiment euh, être en bonne santé ou améliorer sa santé et même au-delà même euh, les personnes de troisième âge par exemple c'est important pour qu'ils puissent pratiquer benn sport Euh, le plus facile c'est la natation a priori. donc bi nga xamante ni c'est c'est pour nit ki mën ko def donc yéen ngeen nan ngeen di doxalee ba mën a jël en compte xale bu ndaw bi ki nga xamante ni voilà am na kàttan le jeune ak mag bi nga xam ne war na def natation. alors donc euh, là euh, sommes une fédération boo xam ne dañu délégué. Euh, des pouvoirs par le ministère du Sport euh, pour pouvoir euh, nous permettre à tout Sénégalais de pouvoir accéder à la natation. Raison pour laquelle donc nous devons organiser loolu noonu sur l'ensemble du territoire et pour loolu euh, donc euh, on bureau donc euh, nous avons un président qui est Maguette Fatim Dieye et puis donc on a aussi beaucoup d'autres structures yoo xam ne les ligues les clubs qui sont affiliés donc ñoom ñooy pratiquement euh, les clubs par exemple ñoom ñooy affiliés licenciés ay euh, nageurs maanaam di jël recruter ay nageurs euh, di leen engager au niveau de leur club et nous au niveau fédéral nous supervisons et organisons tout cela par le biais des compétitions yi nga xam ne ñu ngi koy organiser par le biais ay stages yoo xam ne mën nañ ko def de manière ponctuelle par rapport aux licenciés de ces clubs donc noonu lañ koy organiser et il y a diverses catégories catégorie euh, xale yu ndaw a ndaw yi ñi nga xam ne ils sont âgés euh, entre 10 ans et moins ak catégorie ñu naan benjamin ñi nga xam ne ñu sont âgés entre 11 ans et 12 ans am na minime cadet yi entre 14 ans ba 18 ans et les juniors donc yooyu yëpp ay catégories yoo xam ne dañ ko séparer et si yooyu am na ay compétitions yu nga xam ne dañ koy organiser euh, avant compétition il va de soi que Euh, xale yooyu dinañ tàggatu ci club yi ñu nekk ci fédération bi dinañ organiser xale yi di tàggatu bu compétition yi ñëwee c'est le moment si nga xam ne si la ñu mën a vraiment exprimer li ñu jot a jàng donc voilà un peu de manière générale comment on organise euh, la pratique déjà partant de l'apprentissage après l'entraînement et la compétition. léegi formation ku bëggoon def formation euh, ci li nga xamante ni mooy euh, jàng fee loolu ñaata temps lay durer. waaw donc euh, xam nga jàng boo gis rek euh, am na ay standards donc euh, déjà dans les formations initiation normalement dañ ko cataloguer ñu ne ci dix séances maanaam kuy ñëw di jàng fee war nga mën a war nañ la mën a jàngal ci dix séances ça dépendra donc de comment les séances seront réparties donc ci dix séances yi normalement Euh, un bon instructeur formateur yi nga xam ne formé na leen fédération war nañ mën a apte pour jàngal nit mu mën a am les éléments de base pour pouvoir jàng fee donc euh, noonu laa ko mën a nattee si des séances mais mën na doon sur dix séances comme plus de toute façon à l'issue de ces dix séances boo ci génnee war nga mën a continuer toujours comme toujours rek jàng boo gis dafa laaj nafar donc continuité nafar pour gën a performer gën a améliorer li nga jot am. Hmm. donc léegi euh, amul ay compétition yoo leen di waajal jamono ji hmm. wala. waaw présentement nag <coughs> on est en intersaison maanaam ñi ngi doog a terminer suñu saison ren bi nii euh, mois de décembre parce que saison bi mi ngi tàmbale à peu près mois de mars fin mars ba décembre. donc ñi ngi doog a terminé on est en saison dernière compétition bu ñu mëgoon organiser si saison 2022 bi c'était le 18 décembre donc du coup euh, xam naa bu ñuy tàmbalee ti compétition ça à partir du début mois d'avril euh, ou bien fin avril donc euh, ci loolu lañ nekk actuellement nii en termes de compétition. mais aujourd'hui en dehors ci compétition bi nga xam ne dañ koy organiser est-ce que su leen di faral juste nit ñi di ñëw pour jàng tuuti natation naka lay demee juste pour plaisir comme ñu defee basket loisir et cetera fekk ce n'est pas pour compétir. Si, si, bien sûr. Euh, c'est pas que tous ceux qui apprennent la natation euh, sont prédestinés à la compétition. bon li ngeen war a xam c'est que la natation dafa yaatu quoi euh, ñun suñu buñ nee natation pouvoir yi ñu délégué mooy organiser lépp li nga xam ne dafay doon sport compétitif euh, y a sport de loisir aussi euh, bokk na ci comme aquagym lépp luy activité buy tourner autour et dans l'eau bokk na ci li nga xam ne sas nañu ko donc ça veut dire que tamit sport natation de loisir ci la bokk ñi nga xam ne dañuy jàng pour pouvoir euh, vraiment euh, nager pour le plaisir pour la santé pour le loisir. Ah, kon am na njariñ ci santé. bu baax. Hmm, bu baax njariñ bi mu am mooy euh, déjà dafay développer li nga xam ne dafa baax lu nga xam ne c'est important ci dundu nit ki. Hmm. mooy lan euh, mooy say capacité respiratoire dina ko développer sa capacité musculaire dina ko développer xam nga yooyu bokk na ci yoo xam ne ci lu ma xam si tuuti ci physiologie yoo xam ne. Euh, am na solo ci nit euh, pour euh, di ko defar di ko tàggat. Hmm. donc en tout cas c'est reconnu la natation comme l'un des sports qui améliore beaucoup ses capacités euh, de l'humain donc dans sa physiologie. mais ndox mi ni muy duggee ci ci ci bakkan ki loolu moom ba du am effet ci ci wér-gu-yaramam. pas forcément ça dépend fi ngay fayee. parce que looloo tax euh, fi ngay fayee dafa am solo euh, maanaam si hygiène bi ci qualité fi ngay fayee donc mun loo jëm foo xam ne maanaam ndox bu vraiment euh, bu ñu conseillé bu salté nga dugg fa xëy na boo fa duggee mën nga fa jëlee loo xam ne mën na la gàllankoor si sa si sa santé. donc de telle sorte que c'est important plan d'eau fi ngay fayee bu dee booru géej la wala piscine bi ngay fayee mu nekk qualité de qualité sanitaire vraiment. irréprochable pour que nga mën a éviter ay jël fa ay feebar ci ndox mu salte voilà mais aujourd'hui ñenn ñi dañu naan ndoxu piscine bi se pose question questions ndoxu piscine boobu nga xam ne nit ñi la plupart foofu la ñuy entraîné est-ce que amul conséquence sur la peau wala aussi si santé wu nit ki et aussi aujourd'hui avant nit ki di pratiquer maanaam avant mu dugg si biir plage si biir mer bi si biir euh, ndoxu géej gi ou bien si biir piscine bi est-ce que am na ay crème wala leen loo xam ne da koy def pour se protéger alors donc pas forcément euh, pas forcément besoin de crème ou autre pour euh, maintenant ça c'est relatif à des personnes et par rapport à leur sensibilité sur le plan dermique et, et autre quoi mais normalement tout naturellement quelqu'un qui est bien portant sur le plan de la peau euh, n'a pas forcément besoin de crème alors tantôt yaa ngi may wax waxu ndoxu piscine bi est-ce mm-hmm. que am na chlore bi ça aussi c'est c'est relatif Euh, aux personnes qui peuvent avoir des allergies par exemple euh, et que ñoom euh, ndoxu piscine bi avec les produits yi ñu koy utiliser pour traiter ko c'est contre-indiqué pour eux mais si ce n'est cela normalement ndoxu piscine bi c'est normal dañ koy traiter avec des produits mais ces produits pour la plus la grande majorité de la population n'ont pas d'incidence sur le plan dermique quoi donc hormis ces spécificités que j'ai évoquées géej bi tamit Euh, comme je l'ai dit tantôt, euh, ceux qui veulent prendre des crèmes peuvent prendre des crèmes, mais ce pas une nécessité obligatoire pour tout le monde. aujourd'hui ci wàllum compétition yi nit ki avant moo mën a bok ci n'importe quel club est-ce que am na ne ay examen yu muy def au préalable ou bien directement chez vous lay ñëw. ok alors euh, avant même compétition donc ñun fédération euh, les licenciés yi nga xam ne euh, ñi ngi ci club yi parce que club yi ñoom ñooy recruter seeni nageurs. Euh, di leen accompagner di leen jàngal mais euh, ginnaaw loolu dañuy déposer demander à la fédération euh, ñu établir ay licence de pour la pratique licence boobu nag condition préalable bi c'est que il faut certificat de visite médicale au préalable boo xam ne ki nga xam ne da nga koy demander licence war na ko def certificat de visite médical bi da koy aar day aar nageur bi dina aar club bi dina aar aussi fédération bi Euh, certificat bi day vérifier vraiment euh, état de santé bi parce que am na ay paramètres médicaux yoo xam ne dinañ ko ci xool ndegam ki nga xam ne moom la ñu war a bëgg a licencier apt na pour mën a pratiquer sport bi donc euh, loolu la certificat bi wax donc en finalité normalement c'est un médecin qui le fait benn formulaire boo xam ne fédération dina ko proposer ou ay paramètres yoo xam ne médecin bi moo koy vérifier et si ces paramètres son Euh, vraiment respectée, le médecin approuvera euh, euh, la validité pour la personne de pratiquer le sport. Donc, donc condition pour que nous menions licencier, c'est la présentation d'un certificat médical. Mmh. Premièrement, et évidemment les pièces d'état civil pour euh, euh, confirmer l'âge de la personne, la catégorie. léegi ñi nga xamante ni ñoom ñooy formé yan critères la ñu war a remplir pour mën a nekk ay formateurs est-ce qu'il leur faut une formation wala li ñu war a def en fait. alors très bien donc ñii di former effectivement c'est des cadres mën naa tuddee leen c'est des cadres euh, de la de la fédération parce que euh, pour la plus grande majorité c'est des personnes qui ont été formées par la fédération avant même qu'ils aient été formés euh, sur le plan euh, d'être des formateurs de formateurs ou bien des gens qui vont former ils ont été acteurs c'est-à-dire nageurs euh, en tout cas c'est des gens qui ont milité depuis euh, leur première participation dans la natation en tant que nageur ou autre alors ñooñu noonu fédération dina leen tàggat di leen former à travers des formations au niveau national et même au niveau international yoo xam ne c'est des formations diplômantes qui qualifient les personnes donc ñooñu noonu ñoom ils sont aptes de par euh, leur diplôme qu'ils ont pour pouvoir former initier donc il y a plusieurs catégories de diplômes yoo xam ne fédération da koy établir des diplômes d'initiateur de natation des diplômes d'entraîneur de natation Et même pour le sauvetage, par exemple, les surveillants de baignade, c'est la fédération qui les forme, mmh. qui les forme à travers des formations et pour euh, qui, donc, sous l'ouverture du ministère des Sports, et en finalité, ils auront le brevet de surveillant de baignade. donc gis euh, nañu euh, ci ci ci ci fii daanaka gaaw ci la mais également li nga xamante ni moo ñeel les muscles est-ce que en dehors. ci ci ci ci natation bi kese ngeen di yem wala moom mi nga xamante ni day day day day def natation dafay def yeneen sport comme di def course de vitesse wala di euh, yëkkati ay poids puisque xam nañ tamit euh, doole ci la. waaw donc euh, xam nga sport bu nekk ak dooleem ak tamit niñ koy utee di nga gis sax ñeneen ñuy def yeneen sport comme basket ñu leen di conseiller di si boole natation parce comme on dit de sport de manière générale am na muscles yu muy gën a sollicité euh, par rapport à d'autres et natation particulièrement ça sollicite comme on a l'habitude de le dire et de le constater pratiquement la majorité des muscles du corps à tel point que donc euh, loolu rek euh, laaj na doole parce que foo yëngaloo yëngalee say muscles yëppandoo faw doole nekk ci mhm. waaye du doon doole par exemple ki yëkkati poids mhm. wute na doole bi mën nañ koy wax sa force élastique la force souple la mhm. donc à tel point que Euh, exigence su tamit énergie bi bi war ci natation moo waral euh, dafa laaj vraiment euh, beaucoup d'autres ajouts complémentaires ngay musculation surtout pour le sport de haut niveau ñi nga xam ne yegsi nañ ba nga xam ne ci niveau yu kawe yi mën a compétir à des niveaux plus élevés mu laaj vraiment ñu ci boole walla yeneen comme musculation ak yooyu aajowul peut-être ci xale yu ndaw yi c'est pas conseiller donc mais pratiquement euh, y la technique il faudra que bu baax booy tàggatu nga mën a bien performer par par la technique donc de manière générale pour conclure c'est par rapport à ce point là c'est juste que la natation dafa nécessiter beaucoup euh, de de temps de préparation de temps d'entraînement loolu waral en finalité donc euh, boo ci yegsee di ngay di nga gis ñenn ñu toll comme ni ñuy toll euh, euh, ndax li muy laaj. kan moo ko waa def sax est-ce que ku ku ku pata je peux dire. dina mën a def natation. waaw ni ma ko waxee woon nee na euh, dafa am solo si ñëpp ku pataax ku tuuti euh, ku mag ku ndaw donc à tous les âges c'est en tout cas pour moi parce que je suis dedans c'est le meilleur sport euh, d'ailleurs la preuve gars yi ne football mooy sport roi. waaw <laughs> d'accord euh, c'est c'est roi par rapport à la popularité. mais par rapport vraiment à, euh, aux avantages à l'intérêt euh, pour moi la natation fait partie des meilleurs sports dans la mesure où boo xoolee sax yeneen sport yu bari dañuy conseiller en même temps euh, d'y ajouter de la natation pour pouvoir vraiment. développer yeneen partie yoo xam ne pour mën leen aider seen sport bi ñuy def donc euh, pour cela pour moi c'est c'est un sport qu'il faut toujours associer pour plusieurs raisons pour ces raisons et pour aussi la sécurisation léegi distance bi dem ak ñëw bi loolu distance bi ñaata ñaata la toll. alors piscines yi euh, il y a deux types de piscines euh, ou bien trois même donc euh, les piscines de bassin de vingt cinq mètres yoo xam ne longueur bu mu gën a mag bi vingt cinq mètres la. beneen piscine bi bi si euh, les piscines homologuées quoi beneen piscine bi euh, deux la donc homologuée yi beneen bi bassin bi distance bi 50 mètres la. donc euh, bassin de 25 bassin de 50 mètres léegi en fonction de ces deux piscines de ces bassins il y a plusieurs épreuves de course mën nañ ah plusieurs types de nage. Hmm. donc en fonction de types de nage. et en fonction des distances sur les nages. Donc, on a plusieurs épreuves en compétition qu'on peut utiliser. Mm-hmm. alors est-ce que aujourd'hui sénégalais yi am nañ culture boobu c'est-à-dire da ngay gis xale bu góor sax bu juddoo côté cinq ans commencé jouer football et est-ce que tey am nañ culture directement inscrit seen xale yi ñu dem def natation. alors donc ñun loolu mooy suñu mission. Euh, en tant que délégataire de pouvoir donc moo tax euh, du ñu jël suñu bâton de pèlerin di dem fépp partout Sénégal pour initier pour vulgariser pour montrer à la population euh, sénégalaise l'utilité de la pratique de la natation et pour ces raisons même euh, boo xoolee am nañ ay projets yoo xam ne sax initier nañ ko pour pouvoir jàngal ay euh, xale yu ndaw pour que ñu mën a fay parce que déjà l'intérêt c'est déjà de les prévenir euh, contre les noyades donc euh, Euh, donc euh, bariwul comme ni ma lay wax euh, à cause de li ma njëkkoon a wax ci début bi nee naa vraiment on a tendance à dire sa sa doom toggal ci kër gi parce que xam nga ne mën na fa law te xale mënoo ko téye rek ñun du ñu xalaat mooy dañu bëgg xale yi dem ci natation parce que kooku mooy premier critère boo xam ne dina leen sauver sauver par rapport à au risque de noyade donc pour ces raisons donc on a initié des projets pour initier avec nos partenaires à l'étranger donc 1000 euh, enfants euh, par année pour pouvoir initier des enfants sur des sites qui ont été retenus à la natation. e foofu bu ñu fa jaaree xale yooyu mën nañ après par la suite euh, intégrer leen ci club yi ñu ñu continuer à pratiquer la natation comme sport. est que li ñuy soxla tamit wala sax est-ce que li ñu am ci piscine yi nga xamante ni wax na mën a accueillir ay ay compétition doy na parce que souvent piscine olympique rek la ñuy dégg. est-ce que am na yeneen euh, jumtukaay yu mel ni piscine olympique yoo xamante ni war na mën accueillir ay compétition alors donc euh, je vais vous dire tout de suite euh, ça j'avoue que y a une insuffisance notoire donc de piscines euh, au niveau du Sénégal comme tu la dit euh, il y a que la piscine olympique et puis et, et, et, par, par, ailleurs même euh, il y a la piscine olympique pour pratiquer dans les normes la natation et que même cette piscine olympique on n'est pas forcément à l'aise dans cette piscine parce que à cause des, des problèmes de gestion qu'on constate là-bas, mm-hmm. euh, pour qu'on puisse pratiquer convenablement. À tel point que donc vous voyez que donc s'il n'y a que cette seule piscine. ci wolof euh, euh, maanaam ci wolof. Euh, boo xoolee y a que cette seule benn piscine boobu moo fi am. ah peut-être ay problème mu gestion. Euh, yoo xam ne daf ñuy tere bloqué ñu mën a pratiquer normalement suñu kii bi à cause donc de conflit avec la direction mm. donc boo xoolee bu nee ne benn piscine la ba pare loolu am foofu noonu euh, xam nga ne doy na waar mm. euh, et puis bu dee ne benn piscine boobu noonu moo fi am par rapport à la population sénégalaise xam nga ne kon néew na est-ce que wax ngeen ko seen ministre de tutelle est-ce que xam na ko. waaw ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi waxtaan ak euh, autorités yi euh, autorité euh, ministère de la ville de Dakar bi nga xam ne moom moo yore gestion wu piscine bi ak éventuellement aussi notre le CNOS pour pouvoir problème boobu ñu régler ko nu mu gën a gaawee pour que ñu dellu ci pratique natation donc boo xoolee loolu rek ndegam benn boobu lañu am pour foo xam ne moo nekk aux normes ñu pratiquer. Euh, mu doon lu néew ci benn par rapport à la population donc vous imaginez que donc euh, piscine doyul fu mu toll nii. te ñu ngi xa waajal euh, les Jeux olympiques de 2026 est-ce que boobu tamit nan ngeen koy waajalee bu dee benn piscine rek ngeen am. waaw alors ñun xam nga fii nañ ay at ay at. avant piscine olympique sans am piscine bu normée foo xam ne daan nañ pratiquer. donc euh, bien avant parce que fédération bi bu leen euh, fàtte ne euh, mi ngi juddu 1960. Hmm. donc pratiquement on est à 63 ans ci ren. donc ça veut dire que piscine olympique ça date de mille donc mu am piscine mu ñàkk am piscine que ce soit des piscines privées la fédération s'est toujours organisée pour pouvoir pratiquer parce que au-delà de pratiquer la natation en piscine il y a la natation qui peut être pratiquée au, au niveau des plans d'eau Euh, du lu ñu gënal bu ñu bëggee atteindre niveau niveaux kii mais daañ ko daan def noonu di tàggat en attendant am lu ñu lu ñu gën ba euh, si kaw ñi ñu fi jiitu woon liggéey ba tax ñu indi fi piscine olympique ñu tàmbali ci piscine olympique euh, donc war nañoo am ay ñaar ba ñetti piscine olympique fii rek ci Dakar Euh, et en plus ci régions yi pour que natation se pratique partout. léegi les comme li wax léegi les Jeux olympiques de 2026 di am fii ci Dakar est-ce que yéen a koy waajal bu baax. ñi ngi koy waajal ñi ngi koy waajal et puis loolu léegi lañ koy waajal wala bien avant sax commencé nañ ko parce que comme ni mu la ko waxee ñun dañuy yëngu ci tàggat euh, population sénégalaise nageur à tous les âges. xam nga Jeux olympiques de la jeunesse dafa am normal âge yi nga xam ne fa la ñu war a euh, ñoom ñoo war a daal di tàggatu euh, compétir si compétition Jeux olympiques de telle sorte que ñun ñi ngi def ay détection am nañ ay compétition xale yu ndaw yi yoo xam ne dinañ permettre ñu découvrir ay xale yu ndaw yi am na ñu ñu jàngal donc on fait de la détection pour pouvoir xool le meilleurs jeunes les encadrer commencé nañ ko ba yàgg am na xale yoo xam ne identifié na leen ñu ngi leen di tàggat xam nga ba fu mu toll nii et chaque fois ci année wu euh, saison natation dina am ay compétition yoo xam ne exclusivement c'est réservé à la petite catégorie mm-hmm. loolu d'une part ça permet de détecter des jeunes talents et d'autre part ça permet d'encadrer des jeunes talents et de les mettre dans des conditions de compétition donc ñu ngi ci bu baax euh, comme beaucoup d'autres sports pour préparer les Jeux olympiques de la jeunesse. alors aujourd'hui yëngu ci voilà ci euh, wàllum visibilité pour mën a tax peut-être euh, visibilité pour euh, gën am au niveau international. waaw au mën naa ne euh, am nañ visibilité bi te du doy parce que tamit boo xoolee sur le plan de la zone ouest africaine pratiquement euh, on fait partie des leaders ou bien si si on n'est pas leader parce que la zone 2 c'est-à-dire c'est la zone de l'ouest Afrique et du centre qui est composée pratiquement de 23 pays et régulièrement dañu fi organiser euh, fii bu dul fii wala di participer si yeneen dëkk dañu fi organiser ay championnat d'Afrique de la zone euh, bu ñu si mujjee organiser 2022 euh, bi la woon pratiquement bi ñu ko organiser ñun ñoo raw gàddu bi ñoo ko jël ko quoi pratiquement ñoo ëpp médaille si zone bi si ñu participer y avait pratiquement 18 pays qui avaient participé et puis on a eu le maximum de médailles et puis on était première équipe par rapport aux pays qui ont participé Donc déjà, ça, c'est un moyen de visibilité. Au niveau africain aussi, euh, de manière générale, au niveau de continental, euh, hormis boo jëlee pays yi nga xam ne euh, ñoom euh, ñooñu raw ci moyen si qui qui qui transparaît à travers les résultats comme les pays du Maghreb ak pays Afrique du Sud yooyu donc euh, pratiquement ñun on vient à la suite donc ba on a euh, une, bonne, une bonne représentativité qui n'est pas à négliger au niveau africain. Récemment, vous avez entendu parler d'une de nos championnes, euh, Oumi Diop, qui a été championne d'Afrique cette année en Tunisie, lors des championnats d'Afrique. Elle vice-championne sur la discipline de 50 mètres, euh, de 100 mètres papillon. Donc, euh, donc déjà, elle est médaillée en argent. Euh, il y a 2021, elle était médaillée en or. Donc déjà, ça, c'est une visibilité. Et puis, euh, l'Ouest, tamit il y a Malik Fall. ku ñu naan Malick Fall qui vraiment est notre fierté sur le plan de la natation et une fierté même pour la zone et pour l'Afrique parce qu'il fait partie il a il a eu à casser un peu le mythe qu'on disait que euh, les Noirs ne savent pas nager donc euh, lui euh, de, de dans son temps il est il est plusieurs... ajo ajo la voilà mënuñ ñu fay parce que dañu kii donc boo jëlee Malick Fall pratiquement qui est plusieurs fois médaillé africain donc qui détient euh, qui a détenu beaucoup de de médailles africaines kooku rek euh, au-delà du Sénégal même c'est une fierté pour toute l'Afrique de l'Ouest Euh, voilà alors juste euh, rapidement, avant, rapidement je voulais savoir est-ce que tey yenn fédération bi yéen a ngi amal yenn atelier wala au moins ngay jàngal nit ñi nak la ñu war a secourir ni koo xam ne mu ngi lab rawatina ci plage bi si été bu ñëwee. waaw bien sûr parce que je l'ai tantôt dit su bokk na su suñu pouvoir yi ñu délégué euh, sur le plan sauvetage aquatique. ba tax euh, nee na maître nageur yi ñuy jël ci Sénégal yëpp pratiquement ñoo leen di former euh, la fédération et que ñi nga gis mais amuñu pouvoir recruter leen euh, ça c'est les villes qui les recrutent la, la ville de Dakar et autres qui les recrutent mais quand ñi ngi leen di jàngal pour nu ñu mën a di nekk ci plage yi pour di assurer la sécurité des euh, des des baigneurs. ci la jaajëfal docteur Amadou Lamine Ndoye ngay premier vice-président de la fédération sénégalaise de natation et de sauvetage. waxtaan wi amoon na solo xam naa Wilessa Dia daa bëgg ñu jàngal ko natation <laughs> di la jaajëfal encore une fois sa teewaay suñu plateau. waaw merci beaucoup euh, maa leen di gërëm di leen remercier pour me permettre vraiment d'avoir l'opportunité de partager euh, voilà la natation pour pouvoir vraiment vulgariser cette discipline et puis donc euh, c'est vraiment Euh, bienvenue euh, ce plateau de Sunu Label TV pour permettre vraiment de contribuer donc à la vulgarisation de notre discipline euh, qui nous est chère et puis vraiment euh, Inch'Allah, euh, j'espère qu'à d'autres occasions, je serai invité à nouveau pour partager. Très bien, euh, Fat di la jaajëfal di jaajëfal Wile Sadio Diallo di woyaat encore une fois mhm. di jaale askanu Sénégal ci terrible accident bi amaat tey ji ci suba. ci wetu euh, fi nga xamante ni mooy euh, ngën saax nekk ci Louga jege loolu sàkkal mooy nuyu mbokk yi nga xamante ni ñoo ñuy euh, seetaan foofu ci diwaanu sàkkal parce que man aussi sàkkal laa jànge fa laa amee entrée en sixième di leen ñaanal di wax yàlla suñu borom xare leen àjjana ñi nga xamante ni ñoo si am ay gaañu gaañu yàlla may leen tañ tan ba ñu dellu ci seen ay activité bien sûr euh, Fatou maa ngi remercier docteur Amadou Label Ndoye ci leeral yi nga xam ne indi nañu ko et bien sûr un jour dinañ laaj benn médecin bien fin yi nga xam ne tension am na ko ci wér-gu-yaram di remercier euh, Aliou Ngueye mais aussi à toi Fatou Sidibé ak képp koo xam ne yaa ngi doon seetaan suñu Label TV on vous souhaite un très de semaine merci les sages Diallo bon Alioune rassure-toi askanu Saint-Louis yëpp ñu lay seetaan ah dégg <laughs> xam naa ni loolu nga bëgg a wax doomu ndar la ah, ndar ndar la moo tax may wane boppam <laughs> ngay wane sa bopp noonu. daal fake news yi doomu Dakar la. <laughs> Aliou. dan nga jàngee dégg nga fa nga dëkk ah, rek ñu lay seetaan bu bàyyi rek man sagal la tuuti donc merci à toi Sadio Diallo j'espère que pare nga pour ñu daal di dem jàngi natation. soo bëggee soo bëggul dinaa la xëcc ñu daal di dem dégg nga <laughs> et euh, monsieur Ndour wala docteur euh, Ndoye j'espère que am nañ fa place donc di la remercier bu baax a baax euh, ci disponibilité bi partage bi je pense que dina amal importance bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan donc comme li nga joxe comme information dinañ ci jaar aussi daal di ñëw rek pour ñi nga xam ne bëgg nañ def natation donc remercier téléspectateurs yi àndoon ak ñun depuis 8 heures ci suñu émission suñu matinale donc rendez allah ci beneen matinale yeneen portez-vous très bien, restez connectés au programme de Sunu Label TV et très bon début de semaine à tout le monde. Merci.